mbokk yi Touba ca kanam ñëwati na di joxoñ barab yi nga xam ne barab yu mat a bàyyi xel la mbokk yi mbokk yi barab bii mooy barab bi nga xam ne ci la ay bokki taalibe yu am pas jóg gis na dëkk bi bëri na fi ay xale yoo xam ne ay baayoo lañu dañuy ñàkk toppatoo ba dañuy mujj sanku am na fu nekk ci àddina bi de mbokk yi waaye ñëpp xam nañ ne ci dëkk sëñ Bàmba bii la gën a war gone yii ngeen di gis ñii dañoo judd seeni i waajur faatu ñii dañoo judd seeni i waajur lompoñ ba mënatuñ leen yor ñu jël leen ñuy ay liiri tooy xepp boo koy xool leen tu tànk yi ak li war ci ñoom ak li aju ci ñoom te kenn ku nekk xam na ne dëkk sëriñ Bamba bii kat dëkk rawwaay la kenn ku nekk xam na ne lii de am na fu nekk góor yàlla yaa ngi cay dem di ca def lu nekk waaye jàpp naa ne bëri na mburit yoo xam ne umpale nañ barab bi mbokk yi barab bi ñu nekk nag mooy pouponnière bi ñu duppee soxna maam jaara buso mbokk yi ñii yeyoo nañ dimbal de Touba ca kanam nag lott ci lool waaye mën a joxoñ mën a wane ñetteele at a ngi nii ñuy dajale ay xéwal mu néew mi bari yóbbul leen ko ngir mbokk yi xam ne dëkk bu selli bii di tuubaakat lii am na fi mbokk yi ay jullit akkan ñoo jóge feneen dimbale leen ñu tabax équipement yi des lu bari ngir ñu mën a jël xale yi te bari nañ ci dëkk bi de xale yi di xam ngeen ay xale yi Serigne Touba lañ ay xale yi Maam jaarale lañ jàmbaar yii yor leen meew kuus dëkkuwaay ak ña leen di yor ak la leen war lool muy lu diis te Serigne Bamba am na lépp mbokk yi kon nag pouponnière Maam Jaara bu soo ngi nii ñu ngi ciy séentu ñëpp di ci bàyyi xel ñëpp ñu mat a jàppale ñëpp.

sant bu baax rek ni dañoo ñëwoon fii ci turu Touba ca kanam nooru daara ni ci commission sociale si ndigalu suñu président sëñ Mourtala sëñ Mourtala atin li rabbihimu wakaana jëllalam rabban bi minati kanu yow donatal kal wirdi ma shibarin minalala liminas babil musi jégalu bu baax nag fi ma toll xol xolo jeex wax dëgg yàlla ñëwoon fii ci orphelinat Maam Diarra fekk fi sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ni moo jiite orphelinat bi ci ñu ñëwoon nag ci ndigalu Touba ca kanam suñu président sëñ Moustapha Ibnou eh, indi ay xéwal yuñ doon barkeeloo ci orphelinat bi defoon nañ ko nag ci koor gi indiwoon fi ay ndimbal joxoon leen lu tolloog trois cent mille euh, tey jii nag ñu xam ne dinañu yittewoo xale yi fi ne dinañ yittewoo lu mel ni ruy lu ñu gën sëñ Muntaxa nag yàlla na suñu borom yàggal taxawaayam euh, joxoon ñu dugub barkeeloo koon ci social ramadan bi léegi nag ñu indi leen ci waa orphelinat bi lu tolloog juróomi saaku dugub euh, lii nag moom ku fi ñëw bu sa xol oyofee rek faaw nga am noo def faaw nga barkeelu ba tax na ñu ngi woon ñëpp ànd ceeg Touba ca kanam ak ku mu mën a doon association bu mu mën a doon ñu ñëw jàpp ci kër gi ndax kër gi kat këru liggéey ak yàlla dëgg la sama xol a jeex nag moo tax mënumaa wax lépp eh, dugub ji nag cinq saag yi mooy comme ni ko sëñ li ci sëñ bi barkeel woon rek moo gën a taxati ñu indi ko fii ndax lépp barkeel di ko ñaanal yàlla suñu borom tabaraka yàggal taxawaayam te yéene ji mu am liggéey ko yoonu murit sëñ tubaab fay ko lu kaw njortam. Eh, di am mbégte nag di àddu fii ci orphelinat Kër Maam Diarra muy barab bu taxaw jërëm ak waaye bi nekk fii ci Touba Darou Khadim eh, ñu ubbi ko ngir taxawu tuut tànk yi nga yaay génn àdduna ñuy ay liir yu toll ci nàmp te féreguñ wala ñi nga xam ne seen yaay dafa am wér di xel ba amuñ kenn ku leen mën a saytu ñooñu lañ ubbi kii di leen fi yor te yàlla tax bañ kenn mën a demal seen seen bopp di leen taxaw ci bépp état boo xam ne nit dafa toll sàkku ko taxaw loolu nekk na liggéey bu am solo bu mag boo xam dafa tuuraankoon ci gox bi nekk ndax xam na ñu mel noonu su ma saan am xel daw daj lu may génne xale bi ci dëkk dëkk bi yóbbu ko ci yeneen gox mën naa am sax mu dem dugg ci yeneen loxo yoon xëy na duñ bokk ñoom ay jul waaye duñ bokk ab yar waaye kon loolu moo taxaw ñu taxawal ko ci depuis 2012 ak yéen ne fi ñi fi ëpp waa Touba waaye man ne Sénégal région yëpp seen doom ñi ngi ñi ngi fi Sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo fi toogal Sëriñ Touba tey ñaan yàlla su borom yàgg lool ko ak wér keroog bañ ko jébbalee liggéey bi la mu wax mooy liggéey suñu Tuubaa bu gën a màgg man xaw ko ca saas laa yëkkati waa Tuubaa ci kanam ñi nga xam ne ñoom it ànd nañ ñoom ak liggéey bi seen social dama daan danañ ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi indi fi ay meew baa ñu indi fi tamit lu ñu soxla tey lu mel dugub ji nga xam dëgg la mi am waaye xale yi am na asma bu ñu tollee dañ soxla ku leen jox dugub lool boo xam ne ko su sànq liggéey bu mat a xam la tey bu mat a taxaw la ndax dañuy taxaw nit bokk na ci jaamu yàlla yi gën a jege suñu borom ndax doomu aadama dafa for ci yàlla jirim rawati ca ndax mooy ki xam dafa judd amul kenn koo taxaw te yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën ñëpp suñu borom ab la ko defoon loolu moo tax ci am njàngale mun woon képp koy taxaw jirim ëllëg maa yow sama ñaari baaraam ñii del laaj dana yow àjjana kon liggéey boo xam ne ñu ngi ci woo ñëpp ni ko mbokk wax sànq laaj na ab taxaw ndax fii ku fi ñëw da nga yéeg ni liggéey la boo xam ne tànkal na xam ne amul tànk naaw ndax xale jël li fi jàppale amul 18 ans wala mu am njàngam su noppi mooy noppeegul ci xale boobu ñi nekk ci biir kër gi nag lu toll na loolu ñu ngi ci biti moo ñi xam ne seen mbokk mën lañ yor waaye amuñ man manu mën leen a téye soo leen ñu baa ñun ñoo leen yor dund ñoo leen yor di leen taxaw bañ maanaam dem téye leen fii ñu wax ak yéen jël en charge ñi nga xam ne ñoo leen di dundal actuellement te amaguñ at maanaam féraguñ ëpp nañ 37 ne par ëpp na pot ak fukk ak fukk ak fukk ak juróom fukk ndax xale bu ne benn pot ñett fan la koy wax ne ñoo ci jigéen ñoo leen sànq ñoo leen jox tey personnel bi liggéey eh, laa bëgg a wax ñeent ñoo ciy góor tey suñ bis semenciel ak ëpp nañ 3 millions yoo xam ne amuñ benn subvention état wala bu jóge ci benn organisation allahu lu may mbooloom jullit ñi rawatina waa kër Sëriñ ci ay benn benn wala ci ay mbooloo comme mbooloo mi nga xam ne ñooy Nuuru Daarayni di Tuubaa ci kanam suñu borom defal ñu tawfeex ba ñaanal Sëriñ Tuubaa am ay mbokk yu ñëw jàpp ci ba tabax bâtiment bi muy suñu mbokk arab waaye bërëb bâtiment bi ku ñëw da nga xam ne bi des na lañ bëgg xale bi buy nàmp ba keroog muy yor ay dossier dem di liggéey baa muy jàngi dañ ko war a taxaw ci kër gi kon nag kër gi soxla na mbooloo moo xam ne tey dañ taxawaat ngir fës yéene koo équipé

ak ay tumtuti ak permis ñu indi li tey kon ñeen sant baax di leen jaajëf di jaajëfal suñu mbokki taalibe yi nekk ci bitim réew rawatina waa Italie ci alxidma seen daayira ba nekk foofu sax Cheikh Bassirou Diop jiite ko wax dëgg yàlla taxaw bu ama am solo lañ am ci liggéey bi bañ ci dugg a gudday mën nañu dañaa yërwaane ngir xale yi am luñu lekk tey ji wax dëgg yàlla ñi sant yàlla bu baax xëy na mënuñu lépp mën na waaye ñi sant yàlla bu baax daal